mbokk internautes yi dal leen ak jàmm xibaar bi naka la waddee démb ci euh, jëndum avion bu bees bi nga xamante ni mooy A320 néo e bi nga xamante ni président de la république Macky Sall ak yeneen i président yi ko war a nag wuutu si maanaam ca présidence daal lay daal di nag aju boobule avion ci dem ak dikk képp koy njiitu réew euh, ci nag Sénégal muy dem ak ñëw war koo daal di jëfandikoo xibaar bi wadd ñu ne jënd nañ avion bu bees boo xamante ni nag moo ko daal di jënd euh, ci nag soixante-neuf milliards de francs CFA maanaam jege na a soixante milliards de francs CFA boo xam ne daal nañ koy débloqué jëlee ko nag ci caisse bu forces armées bu Sénégal mu war a daal di nag jënd boobule avion ministre Omar gi nag mel ni ku bëgg indi ab nag tontu ak i tamit bëgg daal di nag leertu wala bokk ragg deru nag présidence de la république bu Sénégal bi nga xamante ni moom mooy porte parole bu gouvernement ci spéculation yi nga nga xam te leerul waaye nag naka la Sénégal mën a daal di nag jamono ji ñu daal di nekk nag di jënd ab avion goo xamante ni ah, nee ñu ëpp na cinquante milliards ba noppi nag ah, dem ca sommet de Paris bi nga xam ne yàggul dara ci dix-huit mai bi nga xam ne moom la ñu daal di génn ah, dem ngir daal di waxtaanee moom président Macky Sall ci naka la ñu mën a def ba annuler dette bi nga xamante ni fu mu toll nii daanaka Sénégal daf ci daal di noyé maanaam bu fekkonte ne ab piscine la nag réewum Sénégal fu mu toll nii bopp ba sax feeñatu ci ni mu endetté maanaam maanaam bor yi nga xam ne moo ko daal di tënk ci union européenne rawatina France nag daf ko daal di tënk lool fu mu toll nii moom Omar Gueye ci ba muy jéem a daal di rag der dafa mel ni nag dafa gën a dugal réewum Sénégal rawatina nag état bu Sénégal ndax nag bëggul communiquer ci prix avion bi biñ ko ko daal di laajee nag ne ñaata lañ ko jëndee nee na nekkut ay mbir yoo xam ne dañ koy waxee noonu mu rax ci dolli moom Omar Gueye ministre porte-parole bu gouvernement cash sax waaye nag ah, dañ koo daal di dogot dogotee te nag ci dernier versement bi état bu Sénégal war a daal di nag def ah, ci lañ koy livré boobule avion dernier versement bi ñu jàpp ne sax ci fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet la muy le 6 juillet bi ñu daal di dëgmal daanaka daal fa ne mën nañu jàpp ne li ëppoon ci xaalis boobee ñuy wax muy cinquante neuf milliards yi Sénégal fay na ko ba noppi li ci des bareetul ngir ñu mën a daal di réceptionné boobule avion bu bees tàq waaye nëbb li a xam ne mooy prix boobule avion lool la ñëpp di laaj ndax nag buñ sukkandikoo ci la euh, Alassane Sall mi daal di jàpp ne fi mu toll nii lii du priorité ay jëndum avion ci boppam moo dul priorité waaye nag lii dafay wane ne état bu Sénégal pour la énième fois ñu defa defati benn dépense bu inutile euh, ba noppi dépense de prestige boo xamante ni nag au profit du président de la République Macky Sall yamu ca ndax keneen itam di Abdoul Mbaye bi mu ko déggee métti lu ko lool euh, daal di ne lii benn yoon te sax war a avion bi ñu daal di wax muy Pointe Sarène nag lan lañ ko daal di nag jaayee loolu la ñu daal di war a nag lijjanti ba noppi waaye moom mi nga xamante ni ah, moom mooy Amar Gueye daal di ne nag li ñu ko jaayee moom avion bu màgget bi ñu ne nag dafa daal di bëri ay ah, dépannage yuñ koy daal di defal muy wàllu maintenance am ak i tamit ni amatul sécurité ngir ah, président de la république loolee lépp nag waroon na wax ñaata lañ ko jaayee ñaata la ci Sénégal daal